ak ñi nga xamante ne nañoo nekk ci ginnaawam chef du village yëpp nag ñu ngi nii toog nii kon mel na ni ki kenn desul ci Ngunjaan ndax ku sol say garambu jël sa alal def ci say poos dara desatul kon ñoom njoboot lay seen alal njoboot loolu nag itam biñ ci gën a am yaakaar muy tuut tànk yi mu wax léegi képp ku leen di jàppale yaa ngi ci ak jaamu yàlla ndax xamuñu manuñu te ñu bugg leen a xamal man loo leen kon ñi nga xamante ne mooy sunu inspecteurs yi fi nekk jàppale leen jàppale proviseur ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm nun nag mënuñu cee wax lu doy nun chef di village yi ndax kenn ku fi ñëw nun nga jàppale si waaye nagam mbay fay itam mënuñu koo ñàkk a gërëm ndax doomu Ngunjaan la ba day jàppale Ngunjaan itam nag ñaanal ko mu gudd fan te weer te yàlla yokk war segam ndax comme que mu ngi koy xaji di deloo ci njaboot li yal na yàlla saxal yi ngeen xamee baat bi bu baax ni mu war a leer du ni mën a leer ndax da di baat boo xamante ne ay la yële nag dama koo ab te ku ab yi fi jàmbur doo ko bugg a yàq bu fekkoon ne dañ ma wax lu ay sereer amaana dina xaw a leer waaye nag wolof la te wolof boobu dama ko ab te wolof yi piir Kajoor yeeg Bawol yaa ngi fi te bugguma koo yàq ah ñu dima ko xoole kon lépp lu ci taq rek na ngeen xam ne baatu sereer bi la wante nag la ca xel mi moom leer na waaye làmmañ yu moo leer ngeen baal ma ci loolu yi man di leen sant di leen gërëm nag e chef du village bu fi ñëw maa ngi lay gërëm di la sant ndax lii mooy seen warugar ndax koo xamante ne dangaa war a jiitu waroo muñ kuy wuufe la ngay wuuf danga koy teg ci sa jumbax waaye boo ko tegul ci sa jumbax wuufoo kuy booti itam ci sa xuru ginnaaw ngay teg boo fa tegul bootoo kon nag la ñaar yooyu yëpp nun joxe nañu ko ah muy proviseur ak enseignant yi fi nekk ak élèves yi ak gan yi ba ci waa rajo bi un commandant ñu ngi lay sant ñu lay gërëm ndax yow dafa mel ni ki sunu ordonnance nga ndax ordonnance day faj feebar eh, waxuma la sax la ca biir waaye lu gën tuuti tuuti bu gisee teni bi xam ne kaykat mooy faj dinga dinga yi pajkal bi nga xam ne nag yaa ko yore te nekk ci sunu biir itam yàlla na ci yàlla jàpp la kon nun ñëpp itam mag ak ndaw góor ak jigéen nañu jéem a nekk nit réewum Sénégal bii nite la laajte waaye laajtewul nag ak ndofe kon Serigne mbay fay maa ngi lay gërëm di la sant ci li nga xamee teg ne kenn ku nekk ba ñu ko ne woon demal indi kay ñu dajale ko ci école bi ndax ñu jox ko élèves yi war na kenn ku nekk kon yow loolu lépp boo ko aakiimoo fekk ñuy sorfi ab malaan xaf ko ba mu mat nga dem indi fale ab ñambaas teg ci ala yewen yàqoo ser bi kon ser boobu yal nañu ko lamboo ba mu ràppe ci sunuy loxo wasalaam ngeen baal ma ak bëggoon naa mu leer te yaatu waaye nag nii rek laa ci mën a ñoo jiite élèves yi seeni doom seeni set seeni jerbaat ah mbay fa it def ci bay ci waar wu rëy xamoo kan la ko bayal ak kan moo des ndax yàgg nañu dàq élève ndax fourniture te ngunjaan gi ku wax te yàlla tax xam nga ne maire fim ci tollu xam nga ne bay na waaram waaye mbay Faye mi nga xamante ne yàlla ko baaxal it mu jël teraangaam jëmale ko ci dëkk bi nga xamante ne fele fekk baax ah moom it kenn demul bu des mën nañ koo gërëm ñu ngi gërëm mboolem jàngalekat yi nekk ci maire jànn ñu ngi leen di gërëm ndax euh, at bu ne bu ñu jël meilleur it jël deuxième ku waxal yàlla rek te yàlla tax xam nga ne professeurs yi jàmbaar lañ maa ngi ñaan tabaraka taala penku bii ma jóge ci yonent bi euh, kay yi muy joxe tey yàlla na ku ci jàng yàlla defal la réussite à cent pour cent ah mbay nag mënuma cee ñàkk a waxaat waxoon naa ko ñu am ñi ko gisee neneen waaye dinaa ko waxaat parce que wax bu dëggu la ci man muy teraanga bi muy defee lii amaanaa keneen am na ko waaye yàlla noyal na xolam ba mu yéene ko doomu aadama bokk bokkook warsegam te it yàgg na koo def te war warlu na ko yàlla na ko yàgga yàggloo di ko ko man lii mbay def na ko te yureelul waa ngunjaan nomb def na ko tànk doomu ngunjaan war na ñëpp waaye ñëpp mënewuñ ko ni mu koy defee waaye xëj na ñëpp am na yéene bi waaye moom la yàlla baaxal yàlla warsegal ko nooyal xolam def ci yaatu ak yéene ba mu jafe ko te war na ñëpp ah kon loolu waxoon naa ko mi ngi jëriñ ngunjaan te yorul ngunjaan ab nomb mi ngi jariñ ngunjaan yi te jëriñoowul ngunjaan xëy na ñeneen gisewul nañ ko neneen waaye tey rek laa koy wax parce que gañewu fi marché yi nga xamante ne moom la ko yàllay warsegal ci entreprise am gañewu ko fi te mu ngi koy jëriñoo Ngoundiane fan la koy liggéey moo xam fa mu koy gañee waaye en tout cas daal fa mu ko mën a liggéey ak fu mu ko amee yéene na ci waa Ngoundiane te mu ngi koy jëfe ñu ngi ñaan li mu wadal Ngoundiane fa mu jóge yàlla ko yàlla barkeelal mu jëm kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Eh, euh, nuyu monsieur le maire nuyu euh, Serigne Mbaye Faye mi nga xam ni tey dafa am lu mu jagleel jàngale. nuyu également proviseur bi ak euh, chef d'établissement yi fi teew yépp ñu ñëw ngir rafetlu geste bu doomu Ngoundiane def muy jàppale éducation éducation nekk lu am solo ci réew ñu ñëpp ñu nangu ko ah moom nag euh, daanaka tey dafa ñëw ak ay jëfam gis nañu ko jox na lu tolloog juróom-ñeenti junni ci ay cahier ndongo ñi nga xam ne ñoo ngi ci euh, maanaam commune bu Ngoundiane wàññeeku joxaat ñaari million ak genn wàll mu jëm ci lycée Ngunjaan ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def na ko fi mu nekk ak caractère social loolu daal doon lu am solo ci éducation ñu ñëwoon ngir rafetlu ko ngir également di ñaax képp koo xam ne mën nga li mu def nga def ko ndax lii moom euh, li wóor mooy bu ko ñu bari defee rek éducation wóor nañu ni dana jëm ci kanam kon nag kadduy sant la kaddu yu gërëm la encouragé également le général donateur monsieur Mbaye Faye waaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah muy cérémonie boo xam ne bii dañ ciy joxe ay fournitures scolaires waaye également di ci joxe euh, ay dons yu am solo te li tax cérémonie bi gën a am maanaam mooy secteur yi ñu koy joxe mooy secteur yoo xam ni dafay secteur yoo xam ni dafa amal solo lool gouvernement bi muy secteur éducation nga xam ni euh, kenn mënut jëmale réew mi kanam fii ak njàng mi melul na mu war a mel gouvernement bi mi ngi def li mu mën mais également mbay fay mi ngi ko ci jàppale bu baax te comme ni ma ko waxee sànq mbay yamul ci éducation kese waaye mi ngi ci santé te santé egalement xam nañ ni lu am solo la ndax li ñuy wax couverture maladie universelle gouvernement bi dafa bëgg fépp foo xam ne fii nit nekk na fa ci réew mi mu mën a faju ci faju bu yomb faju boobu nag ni ñu ko mënee mooy maanaam ñu dugg ci mutuelle de santé yi soo duggee ci mutuel de santé yi di nga mën a faju te doo sonn ndax képp ku ci ñun ku dem hôpital feebar wala nga yóbbu fa malade xam nga ni euh, faju lu jafe la kon léegi su gouvernement bi waxee nii dafay def une partie commune def une partie moom muy ni ñëw def une partie loolu mënuñu lu dul di ko gërëm ginnaaw loolu gis nañu également acte yi mu defoon daaw yoo xam ni ñun ci suñu kanam la ko defee am na beneen secteur bu moo fàtte muy un secteur extrêmement important mooy la sécurité sécurité bi li ci def daaw gis nañ ko vingt millions de francs moom la débloqué def ko ci euh, réfection post de gendarmerie bi alors sécurité également amul benn secteur bu ko gën a am solo ndax bala ngaa man a am développement da ngay am sécurité nest pas monsieur le commandant de donc euh, secteur boobu également mi ngi ciy intervenir mais également ci beneen secteur bu gën a am solo muy secteur jeunesse li nga def ci stade bi nii même loolu ñun xam nañ ko bu baax a baax parce que lépp suñu kanam te it promesse yi nga def également déggoon nañ ko parce que ci kanamu ministre de la jeunesse nga ko defee ministre de la jeunesse remercié li ñu wax sànq ni yow say promesse danga koy tenir en tout cas ñun li ñu fekkee gum lépp moom yaa li nga wax yépp yaa ngi koy def kon encore une fois du ñu masa tàyyi di la gërëm ah mais euh, li ngay def lépp xam nga li tax nga koy def mooy yaa ngi koy def defal ko sa askan parce que lii lañu taamu ci nit ku baax boo amee di defal wolof day wax mbay ci sa wewu tànk yow moom kenn du la woo kenn mun a wax ne yow Samba Alar nga parce que li ngay def yépp yaa ngi def faneen fa ngay liggéey di fa am ay chantier yaa ngi ko fay def parce que loolu la ñuy wax ni mooy responsabilité sociétale de l'entreprise mënoon nga wax ni ah Ngoundiane liggéeyu ma fi parce que fii amoo benn chantier bu la gouvernement bi jox mais danga nga xam ni fii nga dëkk moo tax yaa ngi fiy def lu baax kon encore une fois ñu ngi lay féliciter au nom du gouvernement di la remercier bu baax di la wax ni en tout cas ñun ñi fi nekkal gouvernement bi li ngay def gis nañ ko bu baax te du ñu toll euh, du ñu tay di ko wax ñu ko war a waxee je crois que loolu moo am solo te ñun ñu ngi ci taxaw alors li ci des rek mooy dafa am benn message boo xam ne bii man dama ko bëggoon adressé à la communauté éducative parce que yaakaar naa ni Ngoundiane quand même am ngeen chance boo xam ne bii communauté éducative bi war nañ ko saisir bu baax a baax mooy fii quand yaakaar naa ni condition yi ngeen am bariwul condition yooyu ñu ko am fii en tout cas dans la région parce que état bi mi ngi def li mu war a def mairie bi mi ngi def li mu war a def je crois que ki dem ba rek cérémonie bu mel nii gis nañ ko fi ñu teel leen remettre seen fourniture scolaire mairie bi également mi ngi taxaw ci clôture yi mi ngi taxaw ci tablement yi su ngeen amee loolu am également ay particuliers yu mel ni Mbaye Faye taxaw seen déficit yëpp ñu bëgg ko parce que ordinate informatique ku nekk xam na njëriñam fi ñu toll bu ñu demee ba lycée bi am problème ordinateur mu indi leen euh, euh, deux millions cinq cent mille kon yaakaar naa ni wàccoo na ak yéen kon yaakaar naa ni li ñu des moom actuellement mooy ni ñu koy waxee la balle est dans le camp de de l'éducation en tout cas maa ngi ñaax jàngalekat yi di ñaax surtout parents d'élèves yi di ñaax surtout élèves yi vraiment ñu góorgóorlu bu baax yaakaar naa ne fi ñu toll moom lu dul joxe ay résultats yu baax duñ ko xaar ci yéen parce que vraiment jafe na ay élèves am condition yu mel ni ñi ngeen ñi ngeen nekk loolu message la boo xam ne bii mënuma ko woon ñàkk euh, def à l'endroit surtout des parents d'élèves mais également à l'endroit des enseignants et des élèves encore une fois ku def lu baax moom jaaraama rek lañ la mën a wax jaaraama nag mënut a weesu jaaraama mun a weesu merci kon encore yu fois mbay fay gis nañ bu baax li ngay def ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla loo mën ren su déwénee nga mën lu ko ëpp te lépp doon njariñu gox bi parce que yow li ngay def ne nga doo ko yamale fii rek mais da nga ko yamalee non seulement ci arrondissement bi mais yaa ngi génn Sénégal di ko def kon lii mooy nekk rek doomu Ngoundiane jóge woon fii ci 1984 bi may am fukki ak ñeent ma ñëw ndakaaru mu doon yoon bu gudd bu jafe waaye yàlla dimbali ñu ñu gar suñu bakkan ginnaaw jom ji nga xam ne jëlewoon nañ ko fii ak ngor gi góor góorgóorlu liggéey ak suñu yaanu way jur ba yàlla tax ñu am as tuut as tuut soosu nag la ñu ñëwoon rek pour delloo ko suñu doom yi suñu jarbaat yi man leen jàppale ci ecole bi jàppale leen ci ci ci ci wér yaram gi ak jàppale leen ci yeneen soxla yi ndax loolu xam nga du gan ci ñun ndax foog naa ne daaw ñëwoon nañu et ñu ñëwee daaw defoon nañu lu jógee fanweeri million ak benn ak juróomi million pour jigéen ñi ak ñeneen boo ko dajale daaw defoon nañu fi ñeent fukki million ndax jaroon nañu ñaar fukki million ak benn def ko ci logement bi gendarme yi dek ndax dañu gisoon ne liggéey bi gendarmerie di def ne ëpp naa xalaat ñu bay leen ñu tëj ci bureau yi amuñu fu ñu tëj loolu taxoon ñu jël ko finance ko def ci ñaar fukki million ak benn ñu inauguré woon ko ak ministre du ak ministre des collectivités locales ci at bi passé stade bi aussi bi gouvernement bi waxee ne mën na ci def dara te ñu gisoon la mu defoon matul yokkoon nañ ci fukki million ba tax stade bi tey bokk ci stade yi nga xam ne daal mën nañu jàpp yaakaar ne avec un peu d'effort liñ ci bugg dinañ ko am. ñu joxoon jigéen ñi aussi juróomi million pour ñu koy leblante seen biir parce que xam nañ ne banques yi dañ leen laaj garantie amuñu ko ñu war leen jàppale taxoon ñu joxoon leen juróom million ci ci année boobu. tey dellusiwaat nañ fi pour école bi ak santé bi beneen yoon daañu dellusiwaat pour def leen ak leneen ndax jàpp nañu suñu mission du ci jeex. école bi indi nañ fi juróom-ñeenti junniy kaye jox leen ñaari million pour ak genn wàll pour ñu jënd ak euh, matériel euh, euh, informatique jox mutuelle de santé bi aussi ñetti million xale yooyu nga xam ne boo ñu ngi yëngu ci beneen domaine. soxla woon matériel te amuñu ko ñu jox leen un million pour ñu jël matériel boobu ndax jàpp nañu loolu yëpp ci création d'emploi la